alhamdulillah <clears throat> wasalaatu wasalaamu ala rasulillah kon tey ñoo ngi ñëw nag ci tafsiru quran ñoo ngi tafsir tey inna alladina kafaru sawaun alayhim <clears throat> a anzarta um am lam tunsir um la yuminun xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim xishawatun wa lahum azabun azim inna alladina naka ñaaña kafaru weddi nañu sawaun aji yemoo la alayhim ci ñoom ansarta um ndax xuppu nga leen am lam tunsirhum wala ndax xuppoo leen laa yuminuuna duñu gëm xatama tay na ala u yàlla ala xuluubihim ca seen xol ya wa ala samihim ak ca seen nopp ya wa ala absaarihim xishawatun waaye nag muuraay nekk ca seen bët ya wala um dina leen ñeel asaabun mbugal asimun mbugal gu tar asimun mbugal gu màgg léegi ñu dem ci kuréelu ñaareel muy kuréelu ñuy weddi yàlla maanaam ni ñuy tafsiré bi yoon dañuy tafsiré groupe yi ni mu demee groupe buñ dugg dañuy lay waxal la ca nekk lépp jàll ci beneen tey nag ñoo ngi ci génn lañu ci groupe bu lazina amano léegi nag ñoo ngi dugg ci groupe bu lazina kafaroo yàlla ne illa lazina naka gaañi nga xam ne kafaroo weddi nañu yàlla sawaun aji yemoo la alayhim ci ñoom ansarta um ndax xuppa nga leen am lam tunsir um wala ndax sax xuppoo leen ñoom day laa yuminuuna duñu gëm xatama tay na allahu yàlla ala xulubim ci seen xol ya soo ko xamul mu ngi mel ni nga jël ab gut tay buntu tay soo ko xamul mu ngi mel ni nga fekk lu dugg ci am lëm nga jël dara tay ko tay soo ko xamul mooy maçon bu doon tabax bënn miir roof fa ay dénk def safo nekk ca miir ba ba wàcc raax ba noppi bën bën ya des fa loolee muy def bën bën ya mu di mu di ca dugal doj di ca yokk ci ciment di ko taf ginnaaw ak kanam loolu mooy tay kon tay na tay na seen xol ya tay na seen nopp ya waaye nag bët mu ne su ko tay waaye des koy muur moo tax mu ne wa ala absaarim xisaawatun seen bët ya nag kiiraay ca nekk loo xam ne dañ koo muur wala um ñel na leen asaabun mbugal alimun asimun asimun mbugal gu mag loolu moo almajmuatu saaniya mooy xaajam ñaareel bi ci ñetti xaaj yi nga xam ne moo ubbi baqara léegi nag mbooloo moomu di la si dañoo nekk ci nuqtatul muqaabala jàkkaarloo ak allasina amanu almuttaqiun ñaari laay yi nga xam ne nag moom la ci indi ci kéefër gàtt na ci wax waaye dajale na mboole melo yi nga xam ne moo nekk ci yëfër yi ndax aaya bu njëkk bi dafa wax ne xupp amul njariñ ci ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ndax ñoom dañoo déjjëlu ci seen biir kéefër ga moo tax mu ne inna allazina kafaru sawaun alayhim a ansarta um am lam tunsirum la yuminuun gaañi weddi aji yem la ñoom nga waare leen xupp leen nga bañ leen leen a waare yem ñoom duñu gëm nga daal gis ne ñooñu waroon nañu ak xaaj bu njëkk ba xaaj ba nga xam ne dañoo nangoo gëm te mooy ñi nga xam ne ñoo di muttaqiina yam waxoon ne hudan lil muttaqiina lazina yu'minuuna bil ghaybi ba fa mu jeexee xaaju ñaareel bii di yëfar ñoom dañoo di ci seen biir mbañ googu ak seen biir réer googu bañ nañu ne duñu topp dëgg mukk doonte dëgg leer na it ko topp ku egg foofu nag ci dëjërlu alxuraan ñu jàng ko ci yow ñu bañ koo jàng yam du la tax a jub kazalika ñu di la dig ay tuyaaba boo jaamoo yàlla am ko am ñu di la digu naa la boo mooy yàlla yàlla def la lii ak lii du tax loolu yi noppa bi yëfar loolu ca dugg mënut a nekk ndax ñoom dañoo yorul suufas jiwu lislaam ginnaaw yoruñu baladu tayibu nag laa yaxruju nabaatuhu xol moo di suufas jiwu diine bu xol bonee diine joote ji bu diine ja génneet diine yi naxa lay doon waaye du nekk diine ji baax laayab ñaareel bi nag dafa tegtale ne li waral yéefar lànk ne du gëm dëgër bopp ne du dégg dafa am lu ko waral li ko waral mooy yàlla moo tay seeni xol tay seeni nopp seeni xol du nangu dëgg seeni nopp du ko nangoo dégg wala ab saarim xisaawa te it seeni bët yàlla daf koo muur ba lu ñu xëppi mukk bay gis dëgg loolee nag moo waral ñoom ñu am azaabun asim mbugal mu tar léegi nag daa am jëfandikukaay yoo xam ne ci la di jaar ba mën a ràññee dëgg ak lu dul dëgg jëfandikukaay yooya moo di bët bi nit ki di xoolee ak nopp bi muy déggee ak xol bi muy taataane ay wax ku ñu faj ku ñu tay sa xol tay sa nopp muur say bët nag doo gisati dëgg waaye nag foofu soo ko dafa mel ka ni masalam jabru ak ixtiyaar mën na fee génnee ndax xatama laawu ala xulubihim wala samihim wala absaarihim xisaawa loolu soo ko waxee ku ràññeewul day wax ne xanaa ñi kon yàlla daf koo def forcément pour ne ñoom ay yëfër lañuy ñuy doon waaye dafa tegtewul loolu li muy tegte la mooy weddi seen ak weddee waral ñu tay seeni xol waaye tay ak seeni xol warul seen ak weddi bu fekkoonte ni tay ak seeni xol moo waral seeni weddi da nga naan kon ñii yàlla def leen a def leen ñu gëmul ba noppi bëgg leen tàbbali safara waaye nag tey ak seeni xol war a war warul waru waralul seen ak weddi waaye seeni xol ci boppam la waral ñu tey ko ay jëf la yu ñuy jëf bokk na ci li tax yàlla tey seeni xol weddi ga ñuy weddi bokk na ci li yàlla tey seeni xol rëy gu ñu rëy bokk na ci lu tax yàlla tey seeni xol not not gu ñuy not nit ñi bokk na ci li tax yàlla tey seeni xol topp gu ñuy topp seen bànneex kon weddi rëy lot nit ñi topp sa bànneex mooy waral yàlla tey sa xol tey sa bu nopp muur say bët waaye yàlla du bi nit rek ne ko tay naa sa xol tey sa wi nopp muur say bët doo gis dëgg doo ko dégg doo ko nangu soo dikkee ma lakkale ci safara kon waajoo ji dina dana yey yàlla keroog yemal waaye tey yàlla tey seeni xol ci surat ci suratul baqara dafa wax la tax mu tey ko ci yeneen saar ya boo demee suratul nisaa daa wax ne bal tabaxalaahu alayha bi kufrihim la tax yàlla ta seeni xol seen ak weddee tax su boobaa nga xam ne yàlla forcé wu leen kon ci weddi ko boo demee suratul mu'mini tamit yàlla wax fa ne kazalika yatba'u laahu ala qulubi ala qalbi kulli mutakabbirin jabbaar yàlla li tax muy tey xolob nit xolob ku rëy kuy note yàlla daf koy tey tay ko ngir duggal ko safara de da koo tay ngir rëy ga ak note ga jaasiya yàlla wax afara ayta man ittaxasa ilaahu awaahu wa dalallahu ala ilmin wa xatama ala samihi wa qalbihi wa jaala ala basiri qishaawa kon ndekete ittibaaul hawa mooy waral xatmul qalbi wa xatmu wa wa wa wa jaalul xisaawati ala albasari la tax yàlla makk seeni xol makk seeni nopp muur seeni bët lan la ndax ittaxasa ilaahu hawaahu wa adallahu ala ilmin yàlla réeral ko ci kaw xam maanaam nit ki mën naa xam dëgg ba noppi topp bànnee xam lan ko bañ koo def si boobaa dangaa topp sa bakkan topp sa banneex kon nag topp sa bànneex dina waral makku xol topp sa bakkan dina waral makku xol waaye xol bu yàlla makk noonu rek fekk daa mere borom ni koy wasa xol bi dama koy makk déedéet saa yàlla yàlla makkeeb xol makk nopp am na sabab loolu mooy tafsiru aaya yi ma dikk nag ca dalaa il ya daan indi ca ahadis ya léegi nag ñu ñëw ci sahabatu rasul ak taabiina yi ak yonent bi ci boppam naka lañ doon firee aaya yi inna alladina kafaru sawaun alayhim anzarta um am lam tunzir um laa yu'minuun razi nee na haddasani abi haddasanaa yahya ibnu usmaan ibnu saalih almisri haddasanaa abi kon saalih almisri moo moo moo moo moom um, moo um, usmaan moo moo nettali yahya doom ji mu ne ab haddasanaa ibnu luhay ata qaala qiila ya rasulullahi inna naqra'u min alqur'ani fa narju wa naqra'u fa nakaadu an nay asa fa qaala ala axbirakum suma qaala inna alladina kafaru sawa'un alayhim antartum am lam tuntum la yuminun haulaa'i ahlu naar lasna mu ne ñu ko haulaa'i ahlu naar lasna hum ya rasulullahi qaala ajal nee na abi saali maanaam yahya maanaam imam raasi dafa wax ne nettali na ma sama baay nettali na ko yahya ibnu usman nettali na ko baayam usman nettali na ko ibnu lu ay ata nettali na ko Ubaydillah ibnu Mughirata nettali na ko Abil Haysam nettali na ko Abdullah ibnu Amrin yaani ibnu As nettali na ko nee na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko waxoon ne eh, daf ko daf ko daf ko laajoon ne ko anun de dañuy jàngate léeg bu ñu jàngee am am yaakaar waaye léeg-léeg ñu jàngee xaw a am ak ak ak lan ak ak décoration de yonent bi ne leen ah, ndax du ma leen xibaar ñu ne ko ah, mu ne inna lazina kafaru sawun alayhim an sarte um am lam titurum laa yuminuun ñawet di yàlla daa yem ci ñoom nga xupp leen ak nga bañ leen a xupp waaye du ñu gëm nee na saaba yi ne ko hawlaay ahlu naar ñooñu ñooy safara kat las naahum te jokk bokkuñu ca ñooña mu ne ajal aha kay bokku leen ca ndax inna lazina kafaru la wax sawan alayhim te antum mu'minuuna wa lastum bi bi kaafiriin kon génne ngeen seen bopp ba léegi mu wax ne nettali na ma mu amadu bnu yahya mu ne nettali na ko ab eh, abu ghassan nettali na ko muhammad ibnu amrin nettali na ko muhammad ibnu ishaq nettali na ko muhammad ibnu abi muhammad nettali na ko ikrimatu nettali na ko said ibnu jubair said ibnu jubair nee na jëli naa ibnu abbas mu wax ne inna na kafaru ay bima ansala bima unsila ilayka ña nga xam ne weddi nañ li nga xam ne moom la ñu ci yéen muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, wa in qul wa in wa in qaalu inna qad bi ma jaana qablaka donte dañoo wax ne la jiitu woon te ñëwoon gëm nañ ko mu jiitu la mu muhammad waaye lii nga indi gëmulu ko donte gëm nañ tawrat ak linjiil te lànk gëm euh, bañ a gëm alxuraan yàlla day tay seen xol ya waaye du du leen bàyyi ak ngëm léegi nag sawaun alayhim ansarta um am lam tasur laa yuminuun loola it ñu di la ca addis wax Isaam ibnu Rawaat moo nettali ibnul Jara nettali ko Abu Jafar nettali ko Rabi ibnu Anas nettali Abil Aliya nettali ñaari laaya mu inna alladina kafaru saawun alayhim ansarta um am lam tansurum laa yuminuuna سبحان الذي من سرتم أم, أم, أم, لم تنصرم أم لم تنصرم لا يؤمنون قال هم الذين ذكرهم الله في آخر الآية ألم تر إلى bañ ko laajee ibnu abdullah ibnu abbas daf leen bañ ko laajee abdul ali daf leen ne ñooñu kat du yéen ñooñu mooy ñi nga xam ne yàlla na ne leen alam tara ilal lazina baddalu ni'matallahi kufran waxalu waxalu xaw xawma um daaral bawaar ndax gisuloo ñi nga xam ne xiwal ak yàlla ga dañ ko soppi ak weddi ba tax ñu ànd ak seen i dem safara ñooñu ñooy ñan mooy ñi nga xam ne dañ leen di indil alxuraan ñu gàntal ko te te waxoon nañ leen ne dina ñëw te boobu alxuraan ñëwagul noonu la ko saaba yi tekkee ñi dem taxatama la ala sam ala xulubihim wala samihim eh, mu ne haddasana muhammad ibnu yahya ibna abu ghassan muhammad ibnu amrin salimata an muhammad ibnu isaaq an muhammad ibnu abi muhammad mawla zayd ibnu sabit an ikrimata aw said ibnu jubair an ibnu abbas nee ñooñu mu lim ñëpp jëlee ci ñoom ba ci ibnu abbas mu wax ne xatama laahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim xisaawa yaani xatama laahu ala qulubihim anil huda an yusibu abadan bi xëri ma kasabuka bihi min alxilati jaaka min rabbika ata yuminu bihi wa in amanu bi kulli ma kaana xablaka mu ne seen ngëm du leen jëriñ dara yàlla dana makk seen i eh, xol makk seen i bët makk seen i nopp doon sax nag gëmoon nañ téere jiitoon waaye weddi la weddi gi ñu lay weddi mooy waral makk googu ñu makk leen ko waala absaarin xisaawa itam lim ci jublu mooy waaw wala waala lim ci lim lim ci jublu mooy yàlla makk na seeni xol seeni xel ba duñu dégg-dégg loolee lépp nag boo fàttali ko dama la te gannaaw weddi gaa ko waral wala absaarim xisaawa seen bët ya muuraay moo ca nekk Muhammad ibnu Saïd moo wax ne Muhammad ibnu ah, Muhammad ibnu Saadin moo wax ne Muhammad ibnu Asan nettali na ko ibnu Atiya nettali ko al Awfiyu mu ne baayam nettali na ko am baayam nag baayam bu ndaw bu Useynu moo ko nettali Useynu baayam ko nettali nettali nettali baayam booba ci maam la ko jële maam jële ko ci ibnu Abbas yéen tamit xatamalaahu ala qulubihim wala samihim wala xisaawatu ala absaarihim nee na alxatmu ala qulubihim wa ala wa ala samihim daaj ga ak tay ga xol yàlla ak nopp ya waaye bët ya moom ab sarbet bu lëndëm këris lañ ca muur ba du gis waaye kenn daaju ko ñu jeexal aaya ba ci walawu masaabun asim ñeel na leen mbugal gu tar mu ne Abu Sarata nettali na ma nee na min jaab nettali na ko ibnul Haris mu ne Bushr ibnu Amaarata moo ko nettali Abi Rawxin nettali ko daxaak nettali kooku ibnu abbas nettali kële asaabun yaqulu nakaalun mu ne asaabun mooy nakaalun mooy mbugal mu ne màgg lu màgg te tedd lay niru waaye waxu ko màgg googu mooy mbugal mu doy moo xam ne dana tolloog seen jëf seen jëfoon muy weddi yàlla loolu mooy li ñu war a leeral ci tafsir bi ci kanam tuuti ñëw ci xaat yi ma jaxate kala